ndaje bi ñuy dajale fii tey dafa nekk lu am solo parce que ñu ngi waajal euh, grand màggalu Touba Wakam bi nga xamante ni nii sëriñ euh, Mouhamadou Makhtar Sylla mi nga xamante ni nii sëñ Sidi Makhtar Sylla mi teew euh, moom moo koy faral di organiser fii ci Touba ren nag ñu ngi ci juróomeelu édition bi ñu jàpp ko incha allah gaawu euh, juróom-benni fan ci weeru janvier bi di ñëw ci lañ ko war a def xam nga ne nag euh, yu mel nii bu daan am service su état yi dañuy dajaloo ak euh, comité d'organisation bi pour waxtaanee ci yan anam la état mën a dugalee loxoom ci organisation boobu ba nga xamante ni nii mu nekk organisation bu mucc ayib loolu moo waral ñu daje fii tey ci mairie bu wakkaam Euh, monsieur le maire dawal ñu fi ñu nekk fekk sécurité et yi nga xamante ne nii ñooy yëngu ci wàllum sécurité euh, ci wàllum santé ci wàllum courant bi ak euh, pàcc yi nga xamante nii daal maanaam yëpp daal comité bi yitte woon na ko waxtaan nañ nag ci biir waxtaan bi service état yi jël nañ fi ay engagement bo yu leer yoo xamante ne nii fas yéene nañ ko jëfe pour accompagner maanaam comité d'organisation bi ñu mën a réussir événement bi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal le 6 janvier incha allah. tey jii suñu jataay bi tey moo doon li ko daan defee at mu nekk rek CLD spécial bi ñuy def autour du préfet euh, de des Almadies euh, moom la ñuy def pour cant gi nga xam ne euh, Cheikh Sidi Mokhtar Sylla maa ngi koy def le 6 janvier di ko def fii ci Wakaam ak li ko wër am ci ndigalu sëñ bi nag. muy Cheikh Sidi euh, Cheikh Cheikh sëñ taxa ba ci euh, sëñ Cheikh Bass ak dignité murid yépp àndandoo ko war koo def fii ci Wakaam moo nu dajale fii tey ñu ànd ak euh, moom ànd ak comité d'organisation bi ñëwoon nag ci wet ci préfé ak ñi nga xam ne mooy chef de service am ñu war a tenir bii wax leen tamit liñ bëgg ci bis bi tey nag bi ñu ñëwee ki nu dalal mooy maire ña ngi koy sant bu baax maire le maire de Wakaam comme ni mu ko daan defee at mu nekk rek noonu la ko defee ren dalal nu dans ses locaux ñu déglu nu préfet déglu nu ñu wax ko liñ bëgg liñ bëgg daal ci bis bi mooy euh, ñi fay ñëw ñëpp euh, ñu am kaaraange kaaraange nag ci seen yaram kaaraange ci seen yi nga xam ne mooy seen i bagage te loolu am nañ ci assurance que gendarmerie bi waxee sunu xel dal na ci sapeur pompier ñu ñëpp woo na leen ca wax nañ ko tamit suñuy besoin li jëm ci sapeur pompier li jëm ci tamit kër docteur yi antenne médical bi li jëm tamit ci Sénélec ci UCG euh, ak service de état bi yépp engagé wu nañ ci nañ ko daan jàppalee duñ ci jàppale daaw macha allah ren tamit nee na tamit dañu ci jàppale suñu xel dal na.